fan yi gis na ñaari promoteur suñu papa Gaston ak suñu papa Luc Nicolaï mhm. fan yi dégg nga euh, Luc Nicolaï moo njëkk a def point de presse mhm. wax wax ji nag daf ko wax rek sànni mhm. mais wax ji dafa mel ni per Gaston daf ko jël mel ni moo wax ji da ko moom wax ba ba attaqué waat père Luc ñoom ñaar ku ci nekk di échanger sa morom parole boo gisee loolu lu lay def ak nan nga leen wax ci ñoom ñaar wax dëgg yàlla ak yonent bi mënoon nañ boole seen say takkandoo seen say àndandoo dóorandoo gorandoo. idi loolu ànduma ci. xam nga lu tax loolu mu war a nekk. Hmm. ñoom ñaara fi des di tëgg làmb. Hmm. si li ma gis si promoteur yi mag. Hmm. ndax gisatoo fi Petit Mbaye gisatoo fi Aziz Ndiaye Aziz Ndiaye léegi euh, mu ngi ci côté Balla Gaye di ko jàppale. donc su Gaston desee Luc Nicolas en ko des fi. te soo xoolee combat yi gën a mag yëpp Gaston ko tëgg. Mhm. soo xoolee ligue affiche bi gën a mag ren mooy Ama Baldé ak Modou Lo. Mhm. combat boobu ngay gis ñëpp di ko xaar muy le treize euh, mhm. mars. Euh, mais xaw ma mars. mars le treize mars. mais ñoom ñaar ñoo ñoom ñaar ñëpp ay doomu réew mi lañ. waruñoo nangu wax ju sew seet di aw seen diggante parce que ay kilifa lañ. ñoom ñaar war nañ mën a gisante régler seeni problème wala régler seeni leneen ak leneen ak leneen. non Idi loolu mënul nekk parce que ñoom ñaar ñoo bokk même li ñuy défendre Idi est-ce que sëriñ sëpp da ngeen am jàmm bi ngay wax ci Gaston ak Luc Nicolaï man wax dëgg yàlla ak sëriñ sëpp laa am ak jàmm de ku amul ak man jàmm mooy ñan. ñi hmm. mun mënut a digérer. ñi ñi ma mënut a digérer mooy lan. ñi ma mënut hmm. mooy lan. Hmm. ci wàllu yàlla li ma defal. sag gi ma defal teraanga gi ma defal ak sutura gi ma defal. ak bañkat gi ma doon moo tax ma bëri ay noon moo tax ma bëri ñoo xam ne bëgguñu ma. ñëwal dinañ ñëw ci Gaston bi euh, nañ ñëw ci Gaston bi Luc Nicolaï bi. ci sëriñ soosu suñu paree ñu ñu jubal foofu ndax mhm. fan yi am na ku lay bëgg a rey fan yi moom moo jël sa ñaar bo gaa yëpp moom ñëpp ci moom la ñu daw <laughs> ak ji ba moom. indi moom temps yi Gàmbi jaratoo fa dara léegi ñëwaatal ci Luc Nicolaï ak ak Gaston bi nga léegi boo leen doon loo leen wax. su ma leen doon dénk daal li ma leen wax mooy ñu bokk ndey bokk baay. Mhm. xam làmb ji làmbum jàmm la ndax su kii demee côté be kii dem côté bee ji du du du jag. Mhm. kon nag ku si nekk war ngaa mën a ànd liggéey. Mhm. war nga mën a gis sax sa sa nit jël jour boo xam ne enragé ko yow nga yor beneen jour boo xam ne mooy lool nga jox sa morom jour boobu. Mhm. li nga war a lekk balaa ngaa dugg si pax bi ngay fanaan incha allah balaa ngaa dugg si bàmmeel di ko am.